والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokki yi ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk tënku ci ndigali borom bi tabaraka wa taala di wattandikuloo sunu bopp di leen wattandikuloo bët ay tereem di jëmale sunu xutba tey ci xew-xewu jamono xam ngeen ne diirub ay fan a ngi nii li ñuy wax campagne électorale tàmbali ci réew mépp xëccoo bi tar ci diggante ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw nguur gi fi mu ne ak ñeneen ñi nga xam ne dañ cee bëgg a jot ñoom ñépp di xëccoo benn chaise kenn ku ne ci ñi nga xam ne ñooy candidat yi di gaaral nit ñi seen programme ak seen gisiin wi nga xam ne jàpp nañ ne suñ ci doxalee réew mi ci lay gën jaar ci yoon woo xamante ne bii wu jub la ci la ab am koom-koomam di gën a dem ca kanam ci la tamit nit ñi di mën a gën a dund ci dund goo xamante ni bii gu am jàmm la gu neex la kenn ku ne ci ñoom mu ngi jéem a convaincre nit ñi ci ay discours am ngir mën a am ay baat yu gën a bari ci bisu wote bi ngir ñu tànn ko mu doon njiitum réew mi waaye mbokk jullit yi kuy setantal di déglu discours yi nga xam ne moom la politiciens yi di def moom la candidat yi di def dafa mel ne seen seen seen discours yépp ñu ngi koy jëmale ci ay mbir yoo xam ne jàpp nañ ne yitteel na mbir nit ñi jàpp nañ na moo doon prioritaire ci seeni bëgg-bëgg discours yépp ñu ngi ko jëmel ci danañ fexe ba faju am danañ fexe ba sécurité am danañ fexe ba ak maanu gën a tasaaroo danañ fexe ba utal ndaw yi am xëy danañ fexe ba njàng bi ñu yéwénalaat ko teg ko ci aw yoon mbay mi noonu napp gi noonu danañ fexe ba tabaxal leen ay yoon danañ fexe ba indi leen courant danañ fexe ba tabaxal leen ay hôpital ak yeneen mbir yi nga xam ne jàpp nañ ne moo jiitu ci bëgg-bëgg nit ñi ak seeni pas-pas waaye mbokk yi lu aju ci mbirum diine mi nga xamante ne bi li ëpp ci ñiy dund ci réewum senegal ñoo ko tànn muy seen diine muy diine lislaam ci lu ñu aaral pas-pas bi lu ñu fexe ba jooxe ko doon lu yomb yomb ci ko bëgg lu ñu fexe ba njàngum lislaam ci suñuy doomi jullit mën a jàpp ni loolu da niiwaa na nga dégg kuy discours ci ñoom di ko ci jëmale suñ ne réew mi juróom-ñett fukk yi ak juróom yépp ay jullit lañ léegi sax ñu ngi wax juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñépp ay jullit lañ alquranul karim di seenu téere ca ba lislaam wala ba Sénégal amee indépendance ba tey mosuñoo dégg état bu fi jaar boo xam ne njàng moomu def na ci benn effort tabaxal na leen fu ñu koy jànge wutal na leen ñu leen koy jàngal jàppandal na leen bal li ñu mas gis lépp ñu fi mas a jaar ñëpp lu ci ëpp ci ñoom dañuy sabantal njàng moom bal dañ koy gàllankoor su fekkee ne dañuy tànn bëgg-bëggu li nga xam ne mooy askan wi njàngum alquran de seenum bëgg-bëgg la ndax ñi nekk ci daaray alquran yi di jàng de daanaka soo dee xool ñu ëpp fuuf ñi nekk ci daaray français yi di jàng kon de njàng bii di njàngum français ñoom ñi nga xam ne ñoo notoon réew mi di colonialise yi ñoo ñoo ñu ko imposé dem bàyyi fi ñoo xamante ne bi ñoom ñoom ñu bokk benn der waaye tër programme jox leen ñoo di wéyal programme boobu ba tey kon ana moo war askan wi ñi nga xam ne candidats yi ñu ngi leen di seet si rawatina kilifa yi diine yi nga xam ne am nañ baat jaadu woon na rafet na lool ñu tënk benn programme boo xam ne lu aju ci njàngum alquranul karim lu aju ci njàngum lislaam dañ koy tënk ci am ci dogu bind ko mu leen naññ jox leen ko képp koo xamante ni bi yàlla denk na la réew mi nga dimbale doomi jullit ñi ci njàngum lislaam ñu mën koo am ci seeni doom yarub lislaam ñu mën koo am ci seeni doom ndax euh, njàng mu ne ñëw na fi programme bu nekk ñëw na fi waaye amul benn boo xamante ne bi mën naa lijjanti suñuy jafe-jafe lu dul njàngum lislaam amul benn euh, programme boo xam ne mën naa lijjanti jafe-jafe yi nit ñi lu dul programme bi nga xam ne moom la lislaam tëral kon su fekkee na jullit ñi ñoo ëpp fii ci réew mi ba noppi nag kuréel bu tuuti boo xam ne 3 pour cent la ñuy tekki ci wala 5 pour cent yore seeni mbir loolu lu doy doy waar la ab jullit fu mën a nekk dañ koo digal wala ay jullit fu ñu mën a nekk dañ leen diggal ñu fexe ba taxawal fa mbootaayug lislaam boo xam ne société l'islam boo xam ne day ràññee ci mboolem société yi dañuy ràññee ci seen pas-pas ràññee ko ci seen i jikko ràññee ci seeni melo ak seenu euh, nangoo liggéey kon kenn ku ne ci ñun wala kenn ku ne ci ñun am nga responsabilité ci fexe ba ñiy wut di xëccee réew mi suñu ñëwee na bokk ci li ñuy sàkku ci ñoom ku ñu yombalal njàngum alquranul karim ci suñuy doom ku ñu yombalal yarub lislaam ci suñuy doom ay jurit fu ñu war a nekk dañ fa war a taxawal société bu islaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo mag ay maamam ak i baayam yépp juddoo fa yàlla yónni ko mu am fa fukki atak nangam ngir taxawal fa lislaam waa Makka ko du fi waaye ba mu amee béréb boo xam ne mën na faa dem taxawal fa état lislaam ca mooy Madina dafa laa di gàddaay foofu dem fa mook ak saxaabaam ba yàlla jox ko kattan jox ko ndam mu del siwaat mag kon société bu lislaam mooy société boo xam ne lii di pas-pasu lislaam dafay nekk ci seeni jëmm day feeñ ci seeni melo day feeñ ci seeni jikko société la boo xamante ni bi euh, maandu ak yore xel mu rafet moo xamante ni bi ci la ñuy doxale moo koy moo fay ëpp ndax lislaam ak jullit yi ñooy ñi nga xam ne su leen euh, suñu amee li nga xam ne mooy ndam ba mën a yilif lay seen rôle bu njëkk mooy fexe ba taxawal li nga xam ne mooy diina yàlla ji ci kaw suuf li nga xam ne moo tax yàlla wàccee doomu aadama ci kaw suuf def ko muy xalifaam loolu la fiy def mooy alladina in makkannaahum fi l ardi aqaamu alsalata wa aatawu zakata wa amaru bilmaaruf wa nahaw an il munkar ñàkka mënoon a taxawal loolu ci jamonoy tubaab bi te xoon na sëñ Tuubaa radiyallahu anhu bëgg a taxawal loolu ñu ne ko du fi taxawe ñu génne ko ba mu demee ba am ndam dellusiwaat na fii ci réew mi li mu fi taxawal ñépp a ko gis kon sunu kilifay diine yi kenn ku ne Sénégalais bu nekk am na responsabilité ci càkkutéef loolu mu jëmee ko ci ñi nga xam ne ñooy laaj réew mi mooy yombalal ñu njàngum alquran yombalal ñu yarub lislaam atte ñu ci atteb lislaam jiite ñu ci jiiteg lislaam fexe ba ñoŋal diine ji ci ñi nga xam ne waxtu wu nekk ñi ngi koy fowe ñi ngi fiy dégg waxtu wu nekk ay musiciens ak i comédiens yoo xam ne dañuy jët al ayat alquraniya wala ay ahadis di ko wëlbatee ñu leen neexe di ko boolee ki yu kenn xamul waxtu wu nekk ñuy dégg ñoo xam ne ñu ngi songu diine lislaam di jëme ko ci alquran di suñu téere bi wala jëme ko ci suñu yonente bi muhammad alayhi salaatu wasalaam ba noppi ñu mel ne kenn dara xewul ñëpp na pat waaye tamit presse boo xamante ni bii bu jeng la lu ko neex wax lu ko neex wone lu ko neex def ñëpp na pat kon mu mel ne bëgg matière dafay bëgg a not société sénégalaise bëgg matière lu jëm ci dunduk àddina képp fàtte la nga xamante ne bii mooy dunduk àlaaxira mbokk yi suñu maam yi dañoo ñëwoon ci réew mi fekk ñu fi benn matériel ñu tabax jikko yi ba mu baax ñañ fi bañ fa jógee seeni doom ñoo tabax réew mi ñu mel ne ñun nag loole dañ ko fàtte ñëw di tabax réew mi bàyyi jikko yi ca loo mën a tabax ca tabaxoo jikko yi defaroo jikko yi nit ñi yàqaat ko doomu aadama li nekk ci kaw suuf lépp moo tax yàlla bind ko xalaqa lakum ma fi l ard jamian saxara lakum ma fi l ard jamian su baaxee moom doomu aadama lépp baax waaye su yàqoo lépp yàqu wal iyaazu billah kon société boo xamante ne bi boobu jullit la dafay ràññiku li nga xam ne mooy seen jikko day rafet waaye du société boo xamante ne bi ñi baax ñi wala jikko yu baax yi dafay nëbb jikko yu kàcceer yi feeñ du société boo xamante ne bi ñu baax ñi dañ leen di doyadal di leen desal ginnaaw ñi nga xam ne ñooy saa ñooy saay saay ñu jiital leen xam ngeen ne fii ñi fox bërëkët yi sax tabaxal nañ leen ab arène boo xamante ne bi ay milliards milliards a ca nekk waaye ba tey déggoo daaray alquran joo xamante ni bi fukki million rek lañ fa def ngir jàngal te jullit seen diine bal yëmuñu ci loolu waaye dañ leen di gàllankoor kon nag dafay mel ne kon ñun ñoo nekk ci ay nelaw ndax ñoom suñ ñëwee ci ñun liñ jàpp nañ moom lañ bëgg rek loolu la ñuy wax moom lañuy ñuy digg ne suñu faloo danañ ko def. mu mbokk yi njàngum alxuraan daa bokkul ci suñu bëgg njàngum alquran dañ ko bëggul ci suñuy doom ab laaj la de yarub lislaam dañ ko bëggul ci suñuy doom ab laaj la boo xamante ni bii kenn ku nekk war nga ko laaj sa bopp ca jéem koo tontul sa bopp kon société l'islam du doon société boo xamante ni bii ñi nga xam ne ñooy saay saay yi dañuy nekk ca kaw nekk ca kanam nit ñi baax ñi des ca ginnaaw ñi nga xam ne ñooy woy réer yi ne nañu jiital ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi des ginnaaw ca boo dee xool dafa mel ne nit ñi banqaas yi ci kaw garabug lislaam moom la ñuy song ñuy wax dara bi maanaa bu ñu waxee murit bu ñu waxee ci sëñ Tuubaa dara murit yëpp jóg bu ñu waxee ci tijaan ji dara tijaan yëpp jóg bu ñu waxee ci laayeen yëpp dara laayeen yëpp jóg ca yooyu ay banqaas lañ ci garabu lislaam bàyyi nag dàtt bi lu waay neex def lu waay neex gor fu waay neex faq bu daanoo ñëpp daal yàlla ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tënk li ko yàlla yónni lépp ci benn tomb mooy jikko moo war a jiitu ci ab société kon ku ñu defaral jikko yi ku ñu yaral njaboot gi jàngal ñu suñu téere bi xamalal ñu suñu yonente bi loolu de bokk na ci suñu càkkutéef ñun jullit ñi waaye nag ñi nga xam ne ñoo ay kilifay diine nga xam ne seen baat dafa yaatu suñ waxee ñu dégg suñ joxe woon ñu ndigal ñëpp defee ñooñu de am nañ ci responsabilité bu mag a mag a mag ci yii nga xamante ne bii société euh, sénégalais bi nga xam ne ay jullit lañ seeni càkkuteef la mënuñu ko ñàkk ñu yegge ko ñi nga xamante ne bii ñooy laaj rek mi di ko xëccoo yal na yàlla tawfiixal suñuy kilifa suñu kilifay diina ak suñu kilifay àddina loo xamante ne bii lu yewenal suñu mbirum àddina ak lu yewenal suñu mbirum alaaxira ci nekk yal na yàlla yewenal suñu àddina ji nga xamante ne bi ci la ñu dund waaye yewenal ñu suñu àllaaxira ja nga xamante ne bi fa la ñuy dellu yal nañu yàlla defal dégg ak topp yal na yàlla def ñu ay jaam ca mu xeetal ci ñu jaamu ko ca mu nangul suñu jaamu ca yàlla def ka gën ci réew mi ka gën ci diina ji kooka yàlla na ko yàlla jiital kooka yàlla na ko yàlla jox mbirub jullit ñi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa